Daouda Ndiaye président la mooy nekk priorité li nga xam ne mooy la priorité des priorités. la rupture. jëlee li fi nekkoon yëpp. pas lépp ah ku ne la day jël li ci defar lépp kooku da lay nax dafa am lu dox am lu doxul li ma gën a gëm mooy li matériel. Mhm. wax naa ko sama priorité mooy mooy feebar faju foo nekk boo feebar di nga faju mhm. boo amee dañ la faj boo amul dinañ la faj boo xiifee di nga lekk ronga ñu rek xale yi ñu jox leen liggéey femmes yi jox leen liggéey. gis nga les éléments la éducation bi dox bu ñu ko amee delloo si suñu suñu suñu diine nga xamee ne ñenn ñi ñu ngi koy doxal mais am na dafa laaj ñu gën ko renforcer ci wàllu diine gi ñu gën ko tëgëral. parce que mm-hmm. diine dëkk bu amul diine du taxaw. parce que mooy suñu chance aujourd'hui la foi Sénégal li suñu chance suñu diine dafa taxaw donc aussi loolu mooy ñaan lépp lu nit di kuy nekk président na nga def tout pour que diine bi nga gën ko téye. te am naa yaakaar que ne man avec la rupture ak la souveraineté l'équité bu ñu ko basé ci diine ak les valeurs spirituelles Sénégal dina dem kanam.